kuréel gu beesa dugg na ci biir Pastef ay jàngalekatu daara ñëw jëlib dogal lëkkaloo ci ab mouvement bu ñu duppee mouvement des doomu daara patriote fas yéen rek jàppale ki di Ousmane Sonko seen yéene mooy fexe ba ñu tabb ka njiitu réew guddib ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février atum 2024. ñoom nag. yaakaar gu rëy lañu am ci Ousmane Sonko ndax jàpp nañ ni moom mooy benn candidat kott bi nga xam ne nii bu ñu ko tabbee daana soppi nekkinu daara yi. li nga xam ni mooy président Ousmane Sonko sa teewaay fii ak loonu di ci wàllu diine du ñu jaaxal ndax moom rek ngay bijj moom tamit lañu xam ci yow moo tax ñu topp la. Ousmane Sonko bu toogee bu téyee loxo sàcc yi li sàcc yi daan sàcc ñëw ci ñun. danañ bàyyi lekk ndëkkee gerte caaf. Ousmane Sonko nee na mbégte gu rëy la am bu gisee mbooloo mi nekk ay nitu diine taxaw te tembe fas ko yéene jàppale ndelaat na dige gi mu digeeg ñoom. ñu ne woon donc nun de bu ñu dénkoon réew mi assemblée nationale buy voté budget bi dina am lu ñuy voté muy budget culte ne nangami milliards jagleel nañ ko lépp lu jëm ci diine bi ñaareel bi nga xam ne mi ngi woon suñu programme it te ñu jagleel ko diine. mooy jàpp nañ ni diggante diine gi ak état bi dafa war a doon relation bu leer nañ. boo xam ne du relation naxaate. Sonko di ñaaxit waa Modap ñu gën a takk seen fit bañ a nangu dara di leen xot-xotal ndax loolu rek moo mën a tax ñu yegg sa fu ñu bëgg a yegg mën a it defanteeg ñi bëgg faagaagal projet PASTEF.